daanaka benn fan ginnaaw ndogalu conseil constitutionnel daal di neenal candidature bu may Meïssa Wade député yu parti démocratique sénégalais daal dinañ andi seen tontu Serigne Abo Mbacké Thiam ak ñamu àndal la ñu jàpp moo di ni juróom-ñaari sage yu conseil constitutionnel loolee la ñu def lu garaaw la député yi sax di sàkku ñu tëral lu ñu duppee ab commission d'enquête parlementaire ngir ñu xool ci yan anam lañ éliminé candidat à la candidature yu élection présidentielle bu 25 février bi ñu dëgmaa la rawatina candidature bu Karim Meïssa Wade di candidat bu coalition Karim 2024. bu ñu sukkandikoo ci député yi commission boobee war naa enquête itam ci lu ñu tuddee ay conflit d'intérêt ay corruption yu ñenn ñoo xam ni bokk nañ ci conseil constitutionnel ak seen i digganteeg yenn candidat député yu parti démocratique sénégalais dem nañ sax fu gën a sori bay wax ni juge yi di Cheikh Tidiane bali ak Cheikh Ndiaye dañoo waroon tekki seen i ndombal tànk ndax li ñu sekk ak ñenn ci candidat yi ca noonee kon ñi bokk ci coalition Karim 2024 fas yéene déposé ab plainte ngir bu ñu sukkandikoo ci ñoom indi ay leeral ci li ñu jàpp ni dafay nasaxal lii di démocratie waaye itam droit bi nga xam ni candidat yam nañ ko ci lu dëppoo ak constitution bu Sénégal